gisoo Mamor Diarra eh, Cheikh Ibra Fall da ko fonkoon ba bi mu nelawee Cheikh Ibra dane duma ko tiim mukk duma ko tiim mukk ndax warmal Sëñ Tuubaa mata Cheikh Ibra moom bu ñuy tudd nan fexe ba di roy ngëmam te bañ ko sàkkal morom bés nag Sëñ Tuubaa woo ko ne ko ndax siari ji nga borom saam mu am jafe-jafe lool ne ko ah, déedéet Mbàkke mu ne ko na nga dem siyaare ji ko mat nako. Cheikh Ibra xam nga nu mu def daa daal di wut ñaari nit jiital leen ñu am na ñu ne sëñ yaaram ca la bokk am na ñu ne doomam ca la bokk jiital leen ba ñu jub bàmmeel bi mu mu ne sëñ yaaram taxawal ci diggante bi diw demal nga tiim bàmmeel bi li may jàng bu ma ko jàngee ngir ñaanal ko yow nga jàng ko kee jàng ko tiim bàmmeel bi waaye duma tiim boroom saa mukk ndax sëñ Touba doo magi sëñ Tuubaa tëdd fii ma tiim ko duma ko def